jërëjëf Serigne wàcc leen ko jërëjëf Serigne Touba wàcc leen wàcc leen toujours nag dama koy delloo si ci lu ma leen daan wax rek gis nga lépp lu ñu mën a def ci àdduna te àndut ak te teggin du ñu jëriñ dara fii tëbëg yuuxu ak dal indiwuñu fi indiwu fi kenn daye parce que àll la sori na nit ñi bàyyi ay soxla bàyyi lépp ñëw fi kon donc ñun ñi nga xamante ni bii ñun ñoo leen war a dalal mais pourquoi wax ju bari jooju looy wax looy expliquer yow yaag ma sàmp moomu lu ngeen di expliquer mënu may wax ngeen di wax mënul nekk si pas possible voyez-vous un peu cette silence bu may wax ngeen di wax li may wax du jëriñ wax ji du jëriñ njëriñ pour suñu continuité wu dund ñu jàng loolu nit ki buy wax ak yow jox ko respect nga déglu ko parce que lam lay wax boo ko dégluwul sax yow pour nga jëriñoo ko day jafe donc du coup loolu la comme nag bis bi moom bisub yërmande la bisu taw féex la boo xamante ne bii mbooleem julliti lislaam ñépp seen ndam la seen taw feex surtout ñun ñi nga xamante ni bii nag ñun la sama borom féetale ci Cheikh Ibrahima Fati lu ñu ko sant doyut bis bi bisub cant la ndax li ko waral mooy Serigne Touba mu baax mu tedd mi ñuy yaakaar ba mu laxasaayoo di liggéeyal yàlla suñu borom ak yonente bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko suñu borom tegee ci loxo yi ñamu namm liggéey ba jaare ci seeni loxo bi muy ànd ak ñoom di dem la jëloon lépp bàyyil ko koo xamante ne bi ñoom ñaar ñoo bokk wenn way juru góor muy Cheikh Ibrahima Faty maam Thierno Birahim pendant diirub li mu nekk ci loxoy tubaab yi lépp borom daaru moo tey yor léppam léppam léppam lu war a dox lépp loo xamante ni bii doomu aadama dafa mënta ñàkk ci sa dundinu àdduna ak sa njaboot borom daaru moo te ko yoraloon Serigne Touba moo yoroonu njabootam jàngal leen yar leen yor leen nam leen war a yore ba Serigne Touba mu baax mu tedd ma dellu si waat biir senegal mu continuer loole di ca nekk di ca nekk di ca nekk ba sëriñ bi nekk fii Njaareem bés mu woolu ko muy seen première gisee ñoom ñaar mooy bisu màggalu Daaru Moxti gi waa léegi li ngeen ciy jàngate mooy ku ci amoon njaboot tukki bàyyee sa njaboot sa ginnaaw kan ko bàyyeel taxawula ci sa njaboot noo xamante ni bi yow ci sa jëmmi bopp sax boo fi nekkoon mënoo koo taxawee noonu sa njaboot waaw boo ñibbisee doo kontaan ci moom boo ñibbisee doo bëgg moonte day am nañ ñaar ñaar ñu bokk ndey ak baay wala ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey wala ñaar ñoo xam ne ñoo bokk baay wala ñaar ñoo xam ne bokk nañ ci deret nga dem yend ji barab sangam bàyyi leen say doom bala nga ñëw fekk ñu am lu ca sikk ñu bari dañ koy méngale ci diggante Moussa ak waaye am nañu guute am nañu guute de Moussa bi mu demee diggante ba la muy gàtt gàtt ba mu daataan dellu si am na neneen lu xew ci ginnaawam loo xamante ni bi jural na ko xaal ju tar waaye ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bi mu dellu si waatee mbégte rek la fi nekkee mbégte rek la continuer di nekke ba ba sama borom di def mu làq ñu jëmum ju tedd ja nekk bar sax kon jaaraama borom daaru moxti te moonte bu ñu amee lenn lu ñuy xeeñto woo wala lenn lu ñu mën a jariñoo ci Serigne Touba moom moo ko waral kon kooku ñun ñëpp ko war a sant borom daaru moxti ku di jullit war nga koo sant waaye ku yaakaar Serigne Touba war nga koo sant màggalug daaru moxti gi amul benn doomu aadama boo xamante ni bi yaakaar nga Serigne Touba mbaa nga xam ko mbaa nga am ci moom dara nga dégg ni bisu tey bii kat daaru moxti la te ceerno lañ ciy dajaleel di ko ci santal boromam di ko ci santal Serigne Touba nga toog ci sa kër nekk ci sa soxla bopp waaw téléphone bu war bi après daaw dina ko ko jox ki ko ki for ba di ko wax kay dina jox en bi dafa am kenn ku maandu ku for dix mille francs ci carré bi indil ma ko ci ouvrier yi nekkoon ci biir dañ di làkkat te làkkat du fen du sàcc du dugg lu yoonam newul honnêteté boobu moom foo leen fekk mën nga leen ko waxal suñu mbokku joolaay suñu mbokku séeréer suñu mbokku saraxule ak soninke ak mandinke ak pël yi tukkulóor ñun ñëpp am na foo xam ne bu ñu fa doole suñu suñu yoon naw suñu yoon kon kooku for téléphone boobu noonu ki for téléphone bi na ko jox jox la te ba mu agsi ci borom dégg foofu la war def gis ban ban iPhone 6 amul solo la ki ko ku ko for rek ku ko for na ko indi ko ci rajo bi fee bu leen ko joxee bu dinañ ko wax ci rajo bi borom fu mu nekk dina ko hmm? lu bëgg dafa garaaw taxawal taxaw taxawal tuuti taxawal tuuti taxawal noonu rek taxawal noonu biiru nit kenn du ci jéggal taxawal taxaw dañoo jàngale ay teggin ne comme nag waxtu wi mi ngi bëgg a sori c'est c'est loolu moo ñu fi dajal waaye guddi bay may leen ko noonu yoon mu gën a gaaw may leen ko noonu yoon mu gën a gaaw Serigne Touba dañoo jàngale ay teggin nu ne bi sëñ Mor Anta Sali làqoo ñu di ko denc ci biir armel yi biñ ko dugalee ci pax mi woolu ko muy ñëw nit ñi nekkoon ci kanamam tax mënul jàll dañ koo forcer sax ngir mu avancer ay jéego waaye dafa avancer ay jéego nit ñi nekk seen kanam ay tegginam mayu ko mu jéggi leen mu ne fa toog baax na bu ñu waxee dina ko dégg loolu ay teggin la loolu moo di teggin nit da ngay am i teggin nit da ngay amub yar nit da ngay am sutura nit da ngay am worma waaye nag bu ñu demee ba yooyu yëpp kenn képp ci ñun ku ko làmb ci sa bopp dootu ko fekk nañu xam ni. musibam naarullahi suñu borom teg nañu natt yi gën a bon ci nattu yi suñu borom teg nañu te nattukat ku xam na mu diise ak fa mu mën a mujje jaam bi ku ne war nga koo mën a daw lu tax suñu borom bi la ko teg toogal yow mi la ñëw dangaa karam ah dangaa karam ah, karamp da mën a taw di leen naan ndox man gone yoo xam ne dañuy karamp rek yéen yor nga soxla yoragoo soxla eh, yaa ngi soxla ah, Yeah. a nooyee mais bu kenn mer bu kenn xuloo bu kenn wax kenn du ko naqal bu kenn def kenn du ko naqal ba guddi incha allah rabi